càngat yi par rapport ak procès bi nga xam ni itam jeexal nañ ko jëm si Sonko ak Adji waaw procès bi procès bi bon procès bi agsi na fi mu war a agsi mooy euh, juge yi euh, yi nga xam ne ñoo doon juge mbir mi. jël nañ seen hmm. décision mais dañuy dellu si tuuti tuuti si ginnaaw. Hmm. Euh, Ousmane Sonko dañ ko jiiñ na ko. Hmm. da nga ak dañ danga nga ak da nga da nga menacé nit dee maanaam menace de mort. dañ ko ko jiiñ léegi. procédure pénale dafa am ay pàcc dafa am ay étapes. Hmm. dafa am étape yoo xam ne ay étape d' instruction la ba bañ ñuy àgg ca procès ba. léegi euh, Ousmane sonk ñu jiin ko ne ko da nga da nit xale bu jigéen bi dem bind benn. Euh, plainte bi plainte pour pour viol et menace de mort. Hmm. léegi loolu la plainte bi loolu la quoi dañ na koy da nga danga nga violé. Hmm. ba pare da nga benn benn xale bu jigéen menace de mort. comme li ñuy wax. léegi euh, donc juge d'instruction bi am na un juge d'instruction moom mooy jël mbir yi di xool ba xam lii amul di enquête parce que le juge d'instruction a pour mission d'enquêter. ok il a pour mission d'enquêter donc euh, donc son objectif c'est c'est de trouver les preuves. Hmm. Euh, et et l'infraction c'est-à-dire de voir est-ce que l'infraction l'infraction existe. Hmm. mais aussi de voir est-ce que il y a une culpabilité de de de la personne inculpée. ok euh, te euh, dafa am aussi le juge d'instruction il instruit à charge et à décharge. Mm. c'est-à-dire dans le souci d'établir la vérité. il mm. retiendra les éléments. Euh, contre les éléments quand même qui puissent dire que cette personne est, est, coupable. mais mm. aussi des éléments qui, puissent dire que cette personne n'est pas, n'est pas du tout coupable. Moi, instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire des, des, des, des, des par exemple ci kaw Ousmane Sonko bi day jël ay preuve yi chargé Ousmane Sonko hmm. téye ko mais aussi day jël preuve yi nga xam ne day décharger Ousmane Sonko téye ko hmm. donc ba fii kon juge d'instruction bi ça veut dire que hmm. am na doole bi nga xam ne jox nañ ko ko pour mu xool dëgg bi fan la nekk léegi juge d'instruction boobu nag ci boppam léegi dafa am lu ñu tuddee il a des pouvoirs am il a des pouvoirs d'instruction considérables comme comme comme li comme li ma wax nii léegi pouvoir d'instruction considérable yooyu mu am moo koy permettre par exemple mën na jël ay ay ay luñ ñu tuddee mandat procédure pénale li tuddé mandat. Hmm. mën na jël mandat mandat mandat de comparution. xam nga hmm. Sonko dan nga dan nga gis ñukay ñukay ñu koy convoqué. Hmm. naan ko ñëwal nga leeral. di ko di ko interroger. mais mandat de comparution mandat de comparution mooy c'est un simple convocation. dafa am lu tuddé mandat aussi d'amener. d'amener. c'est-à-dire moi juge d'instruction. man na wax ni man na wax par exemple que man na jox ordre. pour ñu japp waaji indi ko ci juge bi. c'est comprendre. dafa am lu tuddé aussi mandat d'arrêt. mandat d'arrêt mooy dangay wo dans wo magistrat bi wala juge bi. moy hmm. sante nit pour ñu japp waaji yobu ko ci maison d'arrêt bi. moy hmm. mandat d'arrêt donc le juge d'instruction a des pouvoirs d'instruction vraiment considérables. Hmm. ci un pouvoir d'instruction considérable yow juge d'instruction dafa am luñ des pouvoirs d'enquête importants. ok xam ngeen pouvoir d'enquête la am. donc bu fii donc juge d'instruction bi am doole bu permettre mu xool dëgg bi fan la il a des pouvoirs d'enquête importants Il y a un pouvoir d'enquête là. am juste juge hmm. d'instruction le juge d'instruction peut faire des interrogations mën na hmm. interroger hmm. donc juge d'instruction le juge d'instruction peut opérer des saisies toujours rek pour xool fan la le juge d'instruction peut faire des perquisitions mën na def perquisitions pour fan la bi débat aussi euh, la reconstitution des faits tout à fait le juge Tout à fait. Le juge d'instruction peut aussi faire ce qu'on a, peut aussi ordonner des, des, des, des, expertises pour le fond de Donc, le juge d'instruction a léegi ñu xol ñu né nak légui juste d'instruction bobu non, il instruit à charge et à décharge. day hmm. xol day instruit day xol fan la dëgg bi nekk. Hmm. bu féké né légui ci ginnaw pouvoir yoy mom dafa dafa am lu ñu il a des fonctions juridictionnelles très déterminantes. lan mooy fonction juridictionnelle. moy juste d'instruction bi day ñëw day clôt bu xolé bu défé enquête ba paré hmm. day def luñ tuddé clôture de l'instruction. day clôturer instruction. des day clôturer instruction soit par une ordonnance de nos lieux hmm. soit par une ordonnance de renvoi. Ordonnance de nos lieux, moi, là. Moi, qui au topé, le juge décide de ne pas poursuivre, le juge hmm. d'instruction décide de ne pas poursuivre. Maintenant, qui pays, topé, topé, preuve hmm. Établir qui, qui, on Maintenant aussi, euh, hmm. ordonnance de renvoi. ordonnance de renvoi c'est-à-dire affaire chambre de la hmm. cour hmm. d'appel. est-ce que comprendre les bu les euh, affaire bi renvoyer chambre criminelle de la cour d'appel. loolu day wane donc en principe am na ay preuves. de permettre que ne koy procès. donc vous donc waa donc c'est tout un processus. processus le quoi Il da ngaa waroon a mën a respecter. laata mu yegg chambre criminelle. yaa laata mu yegg chambre criminelle. donc bu fini, nii. bu mm. fii mm. bu fii waa ji dañ ko jiin menace de vi dañ ko mm. viol. ak menace de mort. bu fii dañ ko une viol ak menace de mort. te affaire Ousmane Sonko Adji Sarr moom tenir en Sénégal pendant deux ans. ok léegi ñu dem ci procès bi ñu dem ci procès bi donc. c'est-à-dire c'est-à-dire ci procès bi Pape Samba. Mhm. est-ce que ce euh, ultime conviction. Mhm. Euh, euh, respecter neen procédure yi ñu fi cité yëpp laataa ñoo yegg li nga xam nek modi procès bi. Mhm. parce que si su que à décharge rek. parce que ñëpp a déchargé ki nga xam nek modi Ousmane Sonko. mais malgré cela. procès amna donc est-ce que nous analyser du début jusqu'à la fin. respecter les li nga xam nek modi les ak ak yelef Ousmane Sonko allant dans ce sens. d'accord légui xam nga li nga wax déjà da nga am lo wax nga né euh, dafa am preuve yu bëri yoo xam ne day décharger Ousmane Sonko te mm. Sénégalais, yu yu bëri teg nañ ci bët. ok te euh, léegi preuve yooyu noonu ba sénégalais ñu bëri am na ñoo ay ay professeurs d'université génn di bind naan lii warul sax dépasser phase d'instruction. Mm. parce que lii dafa leer. ok que jàpp nañ que ne preuve yi décharger Ousmane Sonko moo gën a bëri. Mm. léegi nag bu fekkee nag léegi dañ fi bàyyi loolu lépp ne waa ji dañ koy renvoyer chambre criminelle de la cour d'appel mooy may lenn mooy am. mooy li fi jata am ci opposant dans l'histoire politique sénégalaise surtout avec le régime de Macky Sall. Moi, on prend un opposant euh, justice la justice est instrumentalisée par le par le pouvoir et par le pouvoir exécutif la justice est une est une excroissance du pouvoir exécutif comme l'ignore mais nous, dañuy politique hmm. c'est dans le seul but de liquider un opposant politique. donc la justice. elle est instrumentalisée. Euh, justice Sénégal la justice Sénégal n'est pas indépendante yàgg nañ ci wax yàgg nañ ci yàgg nañ ci bind parce que dafa am luñ tuddee euh, euh, Sénégal dafa mais pourtant y' a des magistrats assermentés quand même je ne dis pas que euh, moi je parle pas individuellement. je parle de la justice de manière globale. surtout justice bi ni muy doxaleeg opposant opposant opposant Sénégal y' a des magistrats très compétents y' a des magistrats yoo xam ne kenn du leen hmm. y' a des magistrats yoo xam ne seen dignité dañ koy téye ba ba ba ni ñu fiy jugee donc moi je ne fais pas de la généralisation Ce wax justice dañu seetlu hmm. justice Sénégal parfois pouvoir exécutif surtout président bi day jàppandiku ci justice bi parfois pour pour pour liquider euh, nit Alors, loolu mi ngi commencé c'est ce loolu fan la commencé hmm. mi 17 décembre 1962 la crise de de de 62 entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor waa ji waa ñu am problème waa ñu japp waa tejj ko hmm. comme ça ni hmm. de manière lo xamné pour que justifier ko day day day jafé gis nañ ci xaaw Khalifa Sall ak Macky Sall hmm. gis nañ kaw Macky Sall ak euh, Karim Wade donc yo yep yep yep yep ba ay nit di génné di def colloque di di xol di wax né justice Sénégal di xol nan lañu fexé fexee ba justice Sénégal indépendante ñu def ay commission nationale de réforme des institutions nga xamné Macky Sall dafa jël 700 millions dugal ko ci jox Amadou Makhtar mbaw ne ko dawalal doxalal. Hmm. ñu jël ñu def ay recommandations. parmi hmm. les recommandations commission nationale des réformes des institutions dafa am benn boo xam ne xam lan la wax. dañuy conseil supérieur de la magistrature. léegi hmm, dootu dañuy dañuy def dañ koy réformer de telle sorte que maintenant euh, benn président juge constitutionnel. moo koy moo koy conseil constitutionnel. moom moo koy moom présider. pour permettre que justice bi gën a am indépendance donc hmm. bu ñu demee bay bay bay dox ak recommandation yooyu noonu ci commission des nationale des réformes des institutions cela veut dire que ah, dañu xam justice bi mën na gën a baax hmm. mën na gën a baax bu fekkee président du ci dugal loxom bu fekkee le pouvoir exécutif en général du ci dugal loxom. mi ngi noonu donc war nañ war mën a dépassé tey jii président Macky Sall peut-être exemple si moom que ni euh, gracier naa kii teg naa sama conc fii euh, euh, dossier bi maa ko sama tànk exactement mm-hmm. Euh, c'est-à-dire c'est pas c'est pas une question de euh, euh parce que boo seetloo xam le hmm. président Macky Sall dafa guen le 31 décembre hmm. journaliste yi posé des question mu suis man amna dossier xamné suma le sama hmm. euh, réew mi day tak dossier mo gëna mëna tal que dossier Ousmane Sonko Adji dans l'histoire politique sénégalaise manam ci l'histoire récente de de de la politique sénégalaise c'est affaire Ousmane Sonko bi c'est pas une question de de de ci war tag loxom wala war a waru def loxom mais euh, dafa am luñ tuddé gis nga mom lay wax à chaque fois. Hmm, hmm. dafa am ben sociologue bu tudd Émile Durkheim. Hmm. Émile Durkheim dané les normes juridiques. ne sont que des conséquences des normes sociales. affaire Ousmane Sonko bi mën na tal réew mi loolu ñëpp xam nañ ci man génn naa wax ne il y a deux semaines ma affaire Ousmane Sonko bii juge yi bu jëlul décision boo xam ne day jël en compte droit bi su mënee nekk. ba pare jël en compte aussi la préservation de la paix sociale. Mm, mm. boo defu nang dana taal dëkk bi. Mm, te bu taalee dëkk bi. maanaam sur le plan économique sur le plan politique. ak sur tous les plans ñun Sénégalais yi dañ ko dañ dañ ko yëg. donc dama jàpp ne donc euh, euh, pour ñu pour dëkk bi. mën a am jàmm foog ñu jël justice bi di ko doxalee ci anam ba mu waree. bañ a bañ a bañ a nasaxal kenn pour pour pour pour pour assouvir say say say say say besoins personnels alors justement il y a si li si xam que modi développement bu am solo ñëw exactement si euh, phase d'enquête avec ak